ma lépp rek laa lay jox. Mm-hmm. alalu ku sàggan. Mm-hmm. farlu moo koy jël. Mm-hmm. ma may ma. Uh-huh. dafa am benn woy Youssou bu mu wax mu ni neuf heures nga xëy. huit huit heures nga xëy neuf nga dem doxi. boobu alal boo ko lekkee gore woo. waaye boo yoree nit ku ñëpp soxla. li nga ko war a def mooy téye boo ko téyewul bu rëccee. wax ma da lay que yàlla risquement indallah wërsëgu jaam yàlla. yàlla mooy taal yàlla mooy fay. waaye man fu ma ne yëngal ko man. mais da daan nga yëngal wol fu loolu nga fa daan wax naan fii kii kii xam nga. Cheikh Niass su sañoon yow Cheikh Niass li may wax nii. su sañoon tey tey tey tey tey tey tey tey tey mu ñëw wal fa jëri tey tey tey tey. mais bugaan bu sañoon tey tey tey mu ñëw seen TV tey tey tey tey tey tey. ak feneen ak feneen ak feneen mais yàlla dafa dogal contrat bi ma am Futurs Médias dégloo ma ne la. du ma njëkk wax bàyyi naa.

encore une fois de plus weer bi ñu nekk nii. safar weer non weer bi ñu nekk nii. waaw fayeeku naa TFM.